assalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu bi nee na maase ci séentu weer wi sëriñ bi nee na ci séentu weer wi sëriñ bi nee na ci séentu weer wi te lu ci waaye xam nga ñëwili ko na ci séentu weer wi sëriñ bi nee nu ci séentu weer wi te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko nanu maase ci séentu weer wi sëriñ bi nee na nu maase ci séentu weer wi te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko ndigal laa